arbitre yi ñu arbitre arbitre yi arbitre fii nañ leen xoolaat arbitre yi fii arbitre xamuñu dara àdduna ñëpp xam nañ ne ñi nekk si géej ñëpp xam nañ dafa daanu. arbitre yi ñoo tax gars yi yàq stade bi. Reug Reug daan na ko si jàmm salaam mais li kaf la foo rek dañuy foo rek wër na yàlla dañuy foo rek. man lamb yi dama ko doon seetaan télé yaa ngi gis bi ak bii fekkanduwul billaay fekkanduwul Sadio dañ ko daan on nangu rek. jëlante dañuy xeex waa géej waay mais lii du yoon vraiment lamb Sénégal war nañ ko xoolaat Bira Sène xamul lamb na dem arbitre boo xam ne duñ la fay cent mille nga yàq lamb jàmbur ay millions lañ fere ci lamb bi vraiment kii dañ ko a teg daan kii waratul arbitre ay ay millions lamb joo xam nañ ko préparé jëli bi leer nañ katap bi mais lamb maguy kii dañ ko a aj arbitre bi dañ ko war a aj waratul arbitre voilà gis nga booy gis booy dañu daal di saisir di jëli bi dafa leer nañu Sa Thiès daan na jë rek rek jëli bu leer nañu